mbal boo ci nekk. te ñu nekk ci Dakar il faut ñu xam ne Sénégal ñun ñëpp ko bokk ñun ñëpp ko bokk dañu fexe góor ba ñi nga xam ne ay sénégalais lañ ñu bañ leen considérer comme de sénégalais de de second rang wala des sénégalais de la périphérie loolu la ñu war a éviter. alors Famara élection yu dul yomb la ñu jëm euh, parce que liste yi bëri na intercoalition politique yi mag na bëri na euh, lan ngeen nar a ci lan ngeen nar a insister pour tirer votre épingle du waaw man dama gëm ni sénégalais yeewu nañ te coalition yii ma gis nii sénégalais yi du ñooñu la ñuy batal. bu baax dama jàpp ni sénégalais yi li fi dund ci at yi passé duñ jëlaat leen mêmes personnes yóbbu leen assemblée ñuy dundaat lu mel noonu encore bu dee yeewu nañu en tout cas duñ ko def hmm. parce que métti na ci côté yëpp ki ànd ak nguur gi ki ànd ak guuje bi métti na ci côté yëpp ñu ñaan yàlla mu bañati amate Sénégal mais nag. ku ci nekk na ci doxal dugal loxoom pour mu bañ a amati confrontation yooyu bañ a amati nañ fexe ba fu ñu toogalee confrontation boobu tamit bañ fa amati mooy lan nañ jël ñoo xam ne ay sénégalais lañ ay xeexkat lañ ay patriotes lañ bëgg nañ seen réew yóbbu leen assemblée nationale duñ fa xuloo duñ fa xeex mais lépp lu baax ci Sénégal dañ ko fa jàll. kon yow bëggoo ñu jox majorité pouvoir bi. yàlla tere. ndax lan. non mais pourquoi muy am majorité xam nga Montesquieu dafa am lu lu mag lu mu le pouvoir arrête le pouvoir ñoom nañ am ay député mais man li ma gëm mooy na opposition bi sax am député mais li ma gëm mooy société civile bi surtout ñi nga xam ne ay indépendante lañu parce que wéeruñu ci benn parti politique xuloo gars yi ñoom dugguñu ci toppatoowuñu ko ñoom Sénégal lañ ñor ñu feesal leen assemblée dell. séddale yëf yi daal nga bëgg. non nañ fees assemblée sur les cent je pense. soixante cinq soixante cinq députés nañ jël cent yëpp jox ko les indépendants. Famara li ngay wax ni moom xam nga ne. buñ waaw non damay wax rek lii baax pour Sénégal parce que non parce que ñee xaalis lañ leen di jaayee xooy ak yooyu mën na nekk ah, parce que sénégalais yeewu nañ de buñ jëlee cent yi jox leen ko ñu xool ndax cinq yi danañ bloqué assemblée ndax 65 yi buñ séddalee kii 30 kii 35 ñu xool ndax assemblée dina bloqué wu parce que lu baax lu ne indépendante yi danañ ko voté parce que faru ak ñaan ñii ñoom Sénégal lañ faral. waa nag yóbbu leen sa yóbbu leen assemblée ñi nga xam ne Sénégal lañu faral te bàyyi di yóbbu assemblée ñoo xam ne Pastef lañ bokk wala APR lañ bokk ñun foofu lañ far ñun Sénégal lañ far Sénégalais yi nañu xool seen intérêt ñu def ko ku lañ jox xaalis lekk leen bu voté jotee voté leen Sénégal te bàyyi di voté ay parti mais Pastef euh, le le président Bassirou Diomaye fay li tax mu bëgg ñu am majorité mooy nee na pour mu mun a jiite à l'aise parce que ay blocage à tout va lañ doon gis loolu day d'ailleurs la jël comme euh, motif pour tas assemblée nationale bi est-ce que donc bu ñu leen joxul majorité duñu ñu nekkaat yaa ngi ne du ñu bloqué bu fekkee société civile bi lañ ko jox mais rien n'est certain Sénégal aussi li ñu gis tradition mooy ku ñu fal dañ lay jox majorité et loolu aussi quelque part logique na. non logiqueul nga nga mun a liggéey non logiqueul li mu wax moom Bassirou Diomaye président ma koy respecté mais li mu wax logiqueul mais pourquoi ñu bloqué assemblée bu dee loi bi dafa baax lu baax xan moo ko bañ léegi nag kan mooy bloqué bu lu baax bu ñëwee mooy koo xam ne yéene na ñoom ñu daanu mooy opposition bi ñoom bu ñu leen jox xam nga tey koo xam ne tey dalaa contre boo ko defee assemblée loo indi bu baaxee sax mu contre ko yàq ko waaye koo xam ne moom dafa neutre ci seen yii ngeen di xuloo nii intéressé wu ko moom intérêt sénégalais yii la topp. waaw bu ëndee lu baax da koy valider parce que intérêt Sénégal la bu ëndee lu bon nag du ko valider parce que du intérêt Sénégal moo tax sénégalais yi bu ñu leen nax ci discours yooyu dama bëgg gérer à l'aise ak yooyu avec nous il va gérer à l'aise dara du ko gàllankoor bu dee nag li muy indi dafa baax pour Sénégal attention bu dee nag li muy indi ay affaire de politique politicienne la wala dóor sénégalais yi wala sëlëm leen ak yooyu non ñu ne ko monsieur le la république bi mënuñu koo voter bu dee loolu mooy blocage danañ bloquer bu dee loolu rek mooy blocage. lu bon ñu andi ko pour mu jàll ñu ne leen du jàll ñu tuddee ko blocage mooy ñun danañ bloqué waaw bu dee gouver bu dee bu dee nag lu baax lu ne ñu jàll la ko mooy gouverner à l'aise ils vont gouverner à l'aise parce que lépp jàpp naa ne lu baax lañu bëggal réew mi buñ ko indee rek ñun ñu voté ko loolu la rek sénégalais yi nag yeewu leen ci côté boobu bu leen kenn wax ni il foog ngeen jox ma majorité pour ma mën nekk à l'aise bu leen kenn ne il faut ngeen jox pour ma contrer gouvernement bi bu leen dugg ci débat yooyu débat yi ngeen war a dugg mooy ana ñi nga xam ne bëgg nañu Sénégal di leen xeexal ana ñi nga xam ne am nañ transparence ak compétence ana ñi nga xam ne am nañu intégrité te seen loxo takkul ci dara ñu ne la ñu ngi nii ngeen leen dem leen assemblée ñu dem assemblée toog loi bu ñëw ñu xool ko jàngat ko ah bii day wax dëgg yàlla dina baax ci baykat yeeg sàmbkat yeeg nappkat yi ñu voté beneen ñëw ñu ne ah bii de moom dana lor femmes yi dana lor jeunes yi day créer chômage ak yooyu ñu leen pousse leen ko ba ci kanam ñu continuer loolu rek la. non évalué six mois wala sept yi fi président Bassirou Diomaye Faye ak euh, nguuram jot a def est-ce que li ñu la waxoon yépp ci campagne bi yaa ngi gis nañ ñu ngi ci yoon bi yoonu jub jubal jubbanti surtout ak suqaliku. waaw nangu naa ni bëgg nañ defar. nangu naa ni am nañ compétence mais li ñu waxoon yëpp defuñu ko tamit yu bari bokk yu bari si ñu waxoon defuñu ko. parce que ñun li ñu doon xaar mooy. xam nga ñoom dañ leen fal sur la base de la réforme du franc CFA ma gëm ni. francais CFA baaxul te dañ ko war a réformer mais peut-être day jàmp dana nekk ci kanam. Hmm. même boo ko mënul def tey mu wóor ni dafa nekk en perspective da ci am objet objectif mais yow falal ay réformiste waaye doo jël koo xam ne défenseur grand défenseur franc fa la yow ñu fal nga lay fal la parce que la nga leen wax ni dans l'avenir dinaa changer franc CFA parce que monnaie bi baaxul ñu fal la nga jël koo xam ne moom franc CFA la la la la nàmp al amiru directeur national banque centrale. dem ci plateau yëpp ne franc CFA mooy monnaie bu baax bi mooy monnaie bu xam ne moo gën ci monnaie te kenn war koo changer yow ñu fal la pour nga génne nga changer ñu monnaie boobu nga jël ko def ko ministre secrétaire général du gouvernement. topp ci premier ministre. topp ci premier parce que ministre yëpp moo leen ko moo leen moo leen sut moo gën a jege premier ministre waaye yow wanoo a monétaire bu Sénégal. définiru ko mais défenseur la dafa démissionné fa pour ñëw jàppale franc CFA fii ci gouvernement bi. ñu xëy na convaincre nañu ko ñoom. ndax ko no na ko wax na ne man maa taxawoon télé parce que tele la ko waxoon Sénégal yëpp dugg ne leen franc CFA moo gën ci monnaie bi mais gis naa ne war nañ ko xoolaat bu ko wax ñu ñu xam ne comme dafa dafa jébbalu ñëw la. waaye koo xam ne ma nga fa ci ay conviction ba léegi ngeen jël ko ñëw tabb ko ministre day mel ni fa ngeen jëm ak ñun Sénégalais te waxante woon loolu moo tax nag. nañu góorgóorlu xam ñuy xoolaat bu baax ñi ñuy fal ñun defal nañ ko pétition pour mu jóge fa parce que dañ ne